di si suñu téere bi ñu baaxoo fàttali suñ bopp di leen ci fàttali àjjuma ju nekk muy ad durus al awaliya ñu am ak pàttali ci yi ñu joxe woon keroog ba ci jiitu mooy ma maana ashhadu an laa ilaha illallah loolu lan lay tekki bu nit ki waxee ashhadu an la ilaha illallah loolu lan la war a tekki ci nit ki mooy damay fas ni yàlla kenn la duma ko bokkaale ak kenn amul kenn koo nga ne dañ koy jaamu jaamu googee di indi njariñ ñu koy jaamu ñàkk ñàkk koo jaamu ñakk koo jaamu googee di indi lor kurul yàlla lan mooy tekki itam ashhadu anna muhammadan rasulullah bu nit ki waxee lan lay tekk ci moom mooy ma dëggal ni sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ab yonente la boo nga xamante ni mu ngi jóge ci yàlla jëm ci mbindeef yépp yàlla jox ko diine islaam kon loolu lay tekki bu mu waxee ashhadu anna muhammadan rasulullah kon lu mu wax rek dama koy dëggal ba ca topp mooy salaat yi mooy taxawal julli juróom ci naka lislaam jàngale ci sartam ya nga xamante ni moom la ràññee ko beneen ba di joxe asaka mooy génn dara ci sa alal jox ko ñu ñàkk ci ay sartam ya nga xamanteni ni lañ ko jagleel ba ca desat di wor wéru koor moy nga bayyi lek ak naan ak lepp lo nga xamanteni ni dafay dog sa koor ci diran bi fajar gi xare ba kera jant bi di so ba ca des di aj mak moy nga dem joxe ji sa faratay aj juróom yoyu mom lañu faram fatte won ci leçon bi passé muy xawaidul islaam al xams tey nag ñu ñëw ci al iman lan mooy gëm yàlla imaan mooy gëm maa al imaanu ana lan mooy gëm al imaanu gëm huwa at tasdiqu mooy dëggal bi jaa anaa ca la muy dikke bi xii ca moom nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wa gëm lépp loo nga xamante ni moom lañu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam andil loolu moy iman al iman toujours day nek bil ghaib min al xaybiyaat parce que da ngay gëm lo gisul di gëm lo gisul léegi lan moy ponki gëm bi ñu xamee ni gëm moy deug lépp lu seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam andi indi lan moy ponki gëm yi nga xamanteni moy composé wu dajalo ñu doog xamni gëm amna moy qawaidul iman bu fekkon ay tànk la dañu naan tànk yi lay doxe qawaidul iman sita ponki gëm juróom-benn la waya al imaanu billahi nga gëm yàlla gëm yàlla wa malaayikat yi nga gëm ni yàlla am na ay malaaka wa kutub yi nga gëm ni yàlla wàcce na ay téere ci yonent yi alayhim salaam wa rusulihi nga gëm ni yàlla wàcce na ay yonent wal yawmil aaxir gëm ni am na bis bu mujj boo nga xamante ni ca la yàlla taxawal nit ñépp wal qadri nga gëm dogal suñ borom moo xam dogal bu neex la wala dogal ndogal bu naqari yëpp nag benn bu ne daañu ko faram fàccewaat muy ijmaalan léegi kon loolu mooy xawaidul iman gëm yàlla gëm ni yàlla am nay malaaka gëm yàlla wàcc nay téere ci yonente gëm ni yàlla am nay yonente gëm am bis bu mujj ñun ñëpp dañ ciy taxaw gëm dogalu suñu boroom juróom benn yooyu moom la ñuy wax xawaidul iman léegi nag al iman billah ijmaalan mooy lan bu ñu bëggee xam léegi lan mooy gëm yàlla dëgg buñ ko bolokee boole ko rek mooy lan maanaahu an ñu fas anna allaha taala mawsuufun aji melowoo la bi kulli kamaalin ci gépp ak mat yàlla dafa melowoo gépp ak mat wa baidun aji sori la an kulli naqsin ci gépp ak wàññeeku lépp loo nga xamante ni màndargam wàññeeku la rek yàlla daf ko sori waaye lépp loo nga xamante ni màndargam mat la yàlla daf ko daf ko melowoo kon loolu mooy al iman billahi ijmalan tafsilan nag ma maana al iman billahi tafsilan léegi lan mooy gëm yàlla ci ñu taqale ko maanaha mooy lan anna allaha naka yàlla mawsuufun aji melawoona bil wujudi ci ak nekk yàlla aji nekk la wal xidami aji jiitu fi la jiitu goo nga xamante ni amul foo mu commencé wal baqa aji des la des goo nga xamante ni amul fu mu yem u fi lépp jógee yàlla mo fi def ba fi dara nekul yàlla mo fi nekkoon amul fum commencer amul fum jeex wal mukhalafat lil hawaris yàlla dafa wute ak mbinde fi li nga xamante da fay sosu li nga xamante amul won dembu bu gannaaw ëllëgee du am loolu moy mukhalafat lil hawaris li sosu ñi ñep ay sosu lañ makhluqat lañ loolu yàlla dafa wute ak ñoy ndax yàlla nekkul koy sosu wal qiyam bin nafs yàlla du sukkasandiku ci kenn ta ñun faaw ñu sukkasandiku ci kenn dañuy soxlawo ta yàlla du soxlawo kenn wal waxdaaniya yàlla dafa melawoo ak kenn qul huwa allahu ahad yàlla kenn la dafa meloo ak kenn du ñaar du ñett wal qudra yàlla borom kattan la wal qudra yàlla borom kattan wal iraada ak borom ak nammeel wal ilmu ak borom xam-xam wal xayaat aji dund na la alimun yàlla aji xam la amul dara lu kompo la wal xayaat yàlla aji dund la bokk la ñun ñi nga xamante ne dañuy dund ak faatu wa sama aji dégg la. amul dara lu luñ mën neub yàlla bu du ko dégg wal basar aji gis lépp la ñun dañuy gis fiñu nek rek am sax fi ñu nekk mën nañoo bañ gis lépp waye yàlla dara du komp lépp lay gis wal kalam aji addu la te kalaamullah subhanahu wa taala alquran al karim waxi yàlla mooy alquran al karim wa annahu naka mbir tay mbir dal qadirun aji am kartan la muridun aji nam la ali alimun aji xam borom xam-xam la hayyun aji dund la samiun aji dégg la dara ko basirun aji dégg mutakallimun aji wax ta te kenn ku ne dégg na wax yàlla subhanahu wa taala muy alquranul karim <coughs> baneen tombu ma hiya asifaat al jaisa fi xaqillah yan melokaan moyinga yi nga dagan na ci àq yàlla loo nga bukan ni bu ko mu def ko bu ko neexee du ko def comme sifaat alwaajiba yii yàlla dafay melawoo yooyu war la dafa war yàlla melawoo yooyu mooy sifaat alwaajiba sifaat al jaais mooy yi nga xamante ni yàlla bu ko neexee mu amal ko bu ko neexee ko amal loolu mooy leen hiya ijaadu kulli mumkinin mooy amal lépp loo nga xamante ni mën naa nekk wala ijaadu kulli mawjuudin amal lépp lu am lépp lu am rek yàlla amal ko wala mu bañ ko amal ñooyam ci moom bu ko neexee mu amal ko bu ko neexee bañ ko amal comme ni mu amalee àdduna bu ko neexee mu jële fi àdduna tey ak amal ak ak ñàkk amal ñooyam ci moom kon hiya ijaadu kulli mumkin ay ijaadu kulli mawjudin amal lépp loo nga xamante ne gis nañu ko wa tarkuhu fil adam ak bañ ko amal ñooyam ci moom kon jaayis la si moom mu amal ko bu ko neexee mu amal ko bu ko neexee mu bañ ko amal beneen tom man hum al malaayika ñan ñooy malaaka yi almalaikatu malaaka yi ajzaamun ay jëmm lañ yoo nga xamante ne maxluqatun ñu ñu aji bind la min nuurin ci leer laa yakuluuna duñu lekk wala yashrabuuna duñu naan wala yanaamuuna duñu nelaw wahum te ñoom malaaka yooye ibaadun ay jaam lañ yoo nga xamante ne mukarramuuna yu ñu teral la laa yaasuuna allaha duñu moy seen borom mukk ma amarahum la mu leen digal kon loolu mooy almalaayka ay jëmma lañ yoo nga xamante ni yàlla daf leen bind ci leer duñu lekk duñu naan duñu nelaw duñu sonn ay jaam lañ yoo nga xamante ne yu ñu teral lañ laa yaasuuna allah duñ mooy yàlla mukk ci ñu leen digal wa yafaaluun nag maa yumaruun lépp lu leen yàlla diggal loolu rek lañuy def kon ñu gis ni kon malaaka yi ñoom dañoo wuute ak ñun ndax ñun dañuy lekk di naan di nelaw ñu ngi mooy suñ boroom di jéggalu mu ñuy jéggal